yoon wi ma ne ko ban turbine yéen kaay naan man xoolal sama baaraam yoon wi nga xam ni Sénégal moom la jël baaxul yéen kaay des média bi naan man te moo ne wax ji waxuma ko de Sénat ba ca États-Unis ma ni la moo ko xamle daal di réegug siisam fas yéene nag amee réewum Sénégal di ko co <clears throat> turbine yéen kaay naan ma demal rek Sénat bu États-Unis naan Sénégal ma ni la mi ngi ci yoon woo xam ne ci dictature lay daal di mujjee mooy dëgg moom sénateur américain bii di Ben Cardin ma ngay xamle ni moom président Macky Sall dogal gi nga xam ni jël na ko ci dàq présidentielle yi ba jëmmi jamono ma ne la na ci daal di deltu ginnaaw ndax dogal bi baaxul te wóor a dina fexe nag ba laataa mandat constitutionnel am bii di jeex moom sàll ngaari lam tooro buur géde daal di tëggi élection ci réew mi lu solo yéen kaay naan kon monte day majorité bi ma ngay layal report bi di wax nag lan moo waral dëgg-dëgg lii daal di am ci Sénégal laas yéen kaay naan kon rax ci dolli nag naan lu njiit njaag ci li xew ci réew mi yeeweeg taxawu la le peuple yéen kaay naan kon ñoom député yi daal dinañuy nangu ne ñoom ñoo jëfee report bi waaye nag diviser diggante pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire dafa amoon ay mbëkkante ay njuyante yoo xam ni day manoon naa soob réew mi ci crise judiciaire boo xam ne Sénégal mosu koo am ba muy sunu jon yàlla ak tey moom Sall miñ ne institution yi nu ñu doxee yow daal di jël ay responsabilité am daal di wooluwaat corps électoral bi nga xam ne moom Sall joxoon na leen sañ-sañu tëggee élection waa bennoo ñooy wax ba tey de naan du ñun waa yeewi ak waa taxaw ñoo caxat caxatee assemblée nationale def fa lañ fay def daal di état à la loi te dialogue mënta ñàkk am ci réew mi Mamadou Lamine Thiam bu parti démocratique sénégalais naan complot amu fi ñun ci boppam ñoo defu proposition bu report turbine yéen a kaay naan maan député yu Benno Bokk Yaakaar yi daal dina ñuy nag assumer na ñoom daal dàqub élection ba lu njiit njaag ñoo cay njaag le ko le quotidien naan kon def ngeen seenub loi ba nuppi ñoom opposant yi nag daal dinañuy def recours ngir daal di cay dal parti gauche yi te feggu ci président Macky Sall sax bañ nañ CEDEAO nag di sàkku ñu daal di kon fi mu ne kay CEDEAO dañoo ngemb fas yéene nag dal ci kaw président Macky Sall turbine yéene kaay naan kon téeméer ak fukk ak juróom benn ci ay universitaire ña nga naan président Macky Sall delloo sil sa xel l'info yéene kaay naan kon déet ñoom universitaires yi kay dañu daal di fippu naan président Macky Sall démocratie réewum Sénégal nga bëgg liquider du fi am fukki at ak ñaar ngay tëñ-tëñal suñu démocratie élection bu la neex tàbbal géej lii lan nangoo nangooti ñi nga xam ne daanaka miyul ñu droit sax xam na ne li nga def bërki démboo njaay laalewul dara akub droit fa nga naan crise institutionnelle constitutionnel dara amu fi dangaa wiyole kay ay disposition yu constitution Sénégal mooy dëgg te bu doon crise institutionnelle am na am na yeneen yoon yoo xam ne mënoon nañ ci jaar ngir saafara lii te dàq élection du am universitaire yi naan kon sal delloo sil sa xel ndax dogal gii boo ko jëlee ci sab cëgal guy wane nga ni wéeruwoo ci constitution woo ci genn loi bu république daal di ngay caxat-caxatee article 27 caxat-caxatee article 103 ñaari article yoo xam ne dañu ne président ci réewum Sénégal mënta développe ñaari mandat président ci réewum Sénégal mënta soppi ak mandaam universitaires yi naan kon président Macky Sall soppi nga yokku nga docteur Abdoul Aziz Mbodj enseignant ci droit constitutionnel ca UADB ci Vox Populi ne ma ne la conseil constitutionnel kay xanaa def la ko saf rek waaye fi mu ne bu ko neexee lée ñu tëgg ci assemblée nationale mu daal di koy toj rajax su ko neexee ma ni la élection yi daal nu ko amal 25 février fi mu ne nag seen cëggal guy la des te conseil constitutionnel dogal bu mu mënti jël bu mu fàtte 2016 2016 fii la président Macky Sall ne juróomi at la santaane woon laay def waaye conseil constitutionnel ne ko mënoo ko def yow sàll ndax nag Sénégal président mënta yokk wala mu wàññi mandat juróom-ñaari at moo la fal moom ngay daal di def ba mu jeex nga jàllaat te juróom nga 2016 bii conseil constitutionnel mënta weñ loxol président Macky Sall ne ko doo wàññi sa mandat 2024 Sall yokk mandat ñu koy seetaan bu dëgg dee dëgg rek dañoo war a sànni rapport bee dàq ko géej ne ko alee Walf ko di jee naan kon en tout cas président Macky Sall wéet na ci dogalam pression ba mi ngi mel ni tulleeg màlle ci moom manifestation yi daal di yokku député Guy Marius Sagna ak Abbas Fall ñu daal di leen di jàpp taskatu xibaar yi bitim réew rajo yi télévision yi ak journaux yi daanaka lu ñu yekkul président Macky Sall dañ koo fàtte ñoom député yi di Abbas Fall ak Guy Marius Sagna jàpp nañ leen libération yéene kaay naan kon jàpp nañ leen bàyyi nañ leen ba biig mani la Aliou Bey ak di Seydina Omar Touré dong ñoo dese commissariat bu Géejawaay ay yëngu-yëngu yu mitti amoon diggante Parcelles Assainies Pikine ak Kër Mbay Fall moom ministre d'état bii di Eva Marie Coll daal dinay bàyyi président Macky Sall ne ko dàqub élection ànduma ci forum civil naan fa xatik baatuk sénégalais yi nga xam ni président Macky Sall def na ko na ci communauté internationale bi andi ay daan jëmale ci ñoom député Benno Bokk Yaakaar yi naan en tout cas keccet ni te sunub liggéey dong lañ def libération naan waxtu woowu coordination des associations de presse ba fa fas yéene dugal loxoom nag ci plan d'action boo xam ne wal Walf TV lañ ko daal di jëmale sukkandiig sukkandiig jinne jommal na la ñu daal di koy dekkilaat ci fitna gi nga xam ne ñi ngi koy def taskatu xibaar ci seen liggéey Rose nga xam ne coow li coow l'observateur naan Karim Meïssa ndax dara dina ko fekk nag ci li mu def moom it ndax bukki ba màttu rose rek moo ko màtt keroog ba muy déposer candidature am bi Karim xam na xel na ñaari nationalité la am fu nu jàppee rose war ko faa jàppee waaye fu nu bàyyee rose it ndax duñ fa bàyyee Karim Meïssa Wade l'enquête ko dajee naan en tout cas société civile moom jël nañ combat bi def ko seen yos fas nañ yéene amali rassemblement ngir na naqarlu li nga xam ne am na ca l'observateur naan ko en tout cas dégâts yi bari na ba nuppi koomu réewum Sénégal moom daal dinañ koy ngàdd ci digg ginnaaw mu daal di àgg wërngal këpp jël seen kër teg ci réewum Sénégal Sénégal nag daal di mel ni lu nekk ci yoonu yàqu-yaxeet foo làmb ma la gaayaa ngay ñaxtu grève générale nar a am ci réew mi centrale syndicale yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi nag mel ni kuy tekk tekkaaral waaye bés bu yëngoo dina metti wala turbine yéen kaay naan man xanaa déggoo li ma la wax waa Benno Bokk Yaakaar nee ñu ñoo wote loi bi Amar Thiour njiital mouvement authentique national africain naan loi bi nga xam ne wote nañ ko ci assemblée nationale daal di soppi article 31 présidentielle fukki fan ak juróom ci weeru décembre 2024 wane na ni kon sunu république bi ci boppam faatuwul suuxul wane na ni Sénégal mi ngi ni copp daal di taxaw respect institution ak séparation des pouvoirs nag ñëpp ko war a sàkku mooy respecter sa bopp respecter sam réew amaar naan na menace yi dakk institution yi nga xam ne ñi ngi leen di néewal doole na dakk te responsabilité yi fi mu mi ngi daal di nekk ci ñi nga xam ne nag ñoo jiite politique réewum Sénégal te mën caa def lu ne turbine yéen kay naan kon ak lu mën a am Eva Marie Coll Seck ak Zahra Iyane Thiam day ña ngay défier président Macky Sall le mandat yéene kaay naan koon rëkkala ya cay ñoo demoon ca palais tey jii nag ku wuy ji dialogue ba faatu mbaadu nag ñoo gasal seen bopp kàmb moom forum du justiciable naan coow li ci réewum Sénégal dara lenn dong moo ko mën a saafara mooy daal di dem dialogue daal di waxtaan ak président Macky Sall xool na akub saafara Sud Quotidien naan koon en tout cas presse bi moom ñu ngi leen di fitnaal di leen xooj liberté de la presse ñu daal di koy caxat caxatee ci réew mi nag soobu ci xeex beeg président Macky Sall ku gouvernement am journée sans presse ñu fas ko yéene amal ci réew mi ay éditorial yoo xam ne ñoo koy bokk ndaje ak société civile bi fas yéene wax ak président Macky Sall fas yéene fanaan wal fajri ngir naqarlu lii nga xam ne ñi ngi koy def ci presse bi te ñu lu dul seenub liggéey l'évidence naan kon tey conseil des ministres dina neex wala janoo Amadou Ba ak président Macky Sall turbine yéene kaay naan man ak lu mën a xew xam leen ni Touba daal tey ma ngay màggal Serigne Fallou Mbacké tey la màggalu Kazu Rajab gi Touba di fàttaliku galas moom bàyyi Serigne Abdou